ñi nekk ci liggéey mhm. bëgg a sax ca liggéey ba mhm. yàlla suturaal leen ca liggéey ba ñuy liggéey buñ mhm. ca wàññeeku di gën a yokk ñooñu loolu leen liggéey léegi ki nga xamante ne bu ñëwee ci place comme ni léegi mu nekk ci place ñu bëgg ko faa jëlee wala mu mu nekk ci place bëgg fa am jàmm ba dugg ci barab bi muy liggéey rek na tari ñeenti inaa anzalnaahu ak benn xunóot ak benn xunóot waaw ñeenti inaa an muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw anzalnaahu ak benn xunóot képp koo xamante ni yaa ngi koy def ci place bi ngay liggéeyee bu soobee yàlla da nga fay jëm kanam rek waaye doo fa jëme doo fa dellu ginnaaw wala boo xëyee ngay def kursi euh, yu juróom-ñeent benn laxat jaakom bu guddee nga def juróom-ñeent laxat jaakom ak benn kursi yu waaw bu soobee yàlla kii képp ku la jéemal ci sa wàllu liggéeyukaay wala ci sa wàllu am-am wala ci sa wàllu euh, euh, maanaam kii sa wàllu siiw ak yooyu xeet yooyu sunu borom da koy toroxal nag man dama bëgg nit ñëpp déllu wacc yalla déllu alcorane ta xamni lepp mi ngi ci alcorane amul lenn lo xamanteni nit ki mi ngi koy bëgg ak lo mëna doon bu dé milliard nga bëgg sax alcorane day joxé milliard hmm? waaw alcorane da koy joxé allahu alcorane day joxé milliard day joxé lepp mais lima lima nangul dal moy alcorane mënu dara mi alcorane mom lepp lepp a ngi ci lepp ngi ci alcorane te it euh, yëg nañu te gëm ni mhm. euh, euh inshallah taala bu nu xamé fi nga hmm seet si la hmm aju yi faj bu bu àndeeg dogalub yàlla waaw bu àndeeg dogalub bu àndeeg dogalub yàlla maanaam man moom duma ma kenn dara diguma kenn dara waaye ku ku dox ak man rek xam ne yàlla mën a may ab jaamam ku dox ak yow waaw ku dox ak man xam ne yàlla moo mën a may ab jaamam mi ngi noonu du ma bëgg dara it ba ba ba ba xaar ko ci nit wala dara lépp rek yàlla sunu borom moom maanaam ku ku ku ku ànd ak yow. waaw man moom bu ñu doxee tuuti yàlla mën a may. bu ñu doxee tuuti rek nga xam ne yàlla moo mën a may jaamam. mbokk yi mi noonu. yaakaar naa sëriñ bi ay boromi lay waxal. loolu yenu na maanaa leer na lépp nag incha allahu taala fii ci télévision Futurs Médias waaye seen émission bu mag bi di siira tey jii di ngeen gën a bëgg si dina xam gën a fonk salatu ala nabi alassana séeni lay maxtaar mhm. euh, am na ñoo xam ne ñu ngi door a ñëw nee nañ numéro bi lañ soxla ñu ngi ñu ngi di ko bind génne ma numéro bi ñaari numéro yi mi ngi noonu mi ngi noonu numéro yaa ngoog numéro yaa affiché na ko jël leen ko